abonnez-vous sur notre chaîne FTTV Sénégal la chaîne des patriotes Ça, su ne ngeen di ak FTTV Sénégal député PDS yi Boa IMS fësalee ab communiqué daal di leen di xamal que ne seen commission d'enquête parlementaire boobee ñuy sàkku biir assemblée nationale loolee du mës a antu ndax ñoom duñ mës a bàyyi ab magistrat mu ñëw biir assemblée nationale ñu ne kookee dinañ ko fay déglu ci ay dossier corruption ginnaaw bu waa UMS fësalee communiqué boobee député PDS yi tamit fësal nañ ab communiqué daal di leen di tontu ci communiqué bu député PDS yi fësaloon ñoo ngi xamal waa UMS que ne buñ sukkandikoo ci article 2 ci loi organique jëm ci statut magistrat ñom né wa conseil constitutionnel bokkuñ ci corps judiciaire ci réew mi di Sénégal wa tamit ñom né buñ sukkandiko ci constitution ci article 88 liñ dippee conseil constitutionnel bokkul ci cour ak tribunal wu réewu Sénégal donc ñom né ñu bari ñu nekk biir conseil constitutionnel duñ ay magistrat en service waaye ay ancien magistrat lañ ay magistrat yu retraité lañ donc ñoom ne waa UMS waruñoo défendre ñooñee ndax ñooñee ak magistrat yi bokkuñu estati ci réew mii di Sénégal ñoom ne si li sukkandiku ba ne war nañoo mën a daal di oo ab ancien magistrat biir assemblée nationale ngir kookee ñu daal di caytu mbiram bu fekkee ne kookee dañ koo ger wala mu amal ay njuuj njaaj ci réew mii di Sénégal ñoom ne foofee lañ sukkandiku ba de di a pour commission d'enquête parlementaire bir assemblée nationale ngir zisbin dipé ñu Cheikh Tidiane koulibaly ak di assemblée nationale ngir ñu daal di saytu seen bir ci lu jëm ci candidature ki di Karim Wade ndax ñoñe ger nañ len vous ci sunu chaîne FTTV Sénégal la chaîne des patriotes ça su ne